bopp sama xol bi sedd mel na xolu yaay seex seex ak rëm toll bu ko jox ñu nopp ay suñu xol yi sedd mel na xolu yaay seex seex yaay seex xolu yaay seex seex yaay seex xolu yaay seex di saa yaay seex xolu yaay seex yaay seex xolu yaay seex di saa ey waa ndeke mer ni la war a mel lii ko mu metti di nga mer ba dee liñ fi teg di joobul nañ ko ànd ñun ñëpp waxte dee mbur waroon naa dépassé fii te diñ ko accéléré kenn bëggul nawet joor ndax dafa koy daal di salte ba nga fi ñëwee ci loxol yëpp daal di dund mbégte bu daw di gestu amul ragal tefes ñoo ngi sa ginnaaw ku ñàkk bu xeex ak ku yor kon dafay ndóor waa golo ku koy dégg naka nopp yëpp dégg seex isaa taal na xolu noonu wowal di du yaay mi mbuur jombalee par cinq di ko marqué jeunesse bi ñëw la bëgg ku bañ ma ñef koy maraakis yaa dàq si ñun lawal deuxième troisième ñu tarxiis ñun ñëpp yow lañ bàyyi xel moo tax ñu bàyyi mbëgg sant coono jeex na li ngeen doon ñaan ni yàlla antu na handicapé yi ci ay financement Apicostan aux étudiants de Mbour dans les universités du Sénégal yaa ngi former jeunesse bay les cours de vacances gratuits sport culture muur yaa ca mën génn leen coono jeex na Seex Isaa seen doom yegsi na am buur jug leen yàggaayo yaay doomu gaynde gaynde jëmmal nguur génn leen coono jeex na Seex Isa seen doom yegg si na ah Mbuur jug leen yàggaayoo ak Seex Isa Mbuur dina changer xamante ne nu ngi la koy ñaan yow Cheikh Issa parce que li kiy wax rek gis bëgg yàlla koy def dañ laa yàgg xaar nag ba tey nga egsi ñu ngi la ci ciy jëfal bu baax teg suñu yaakaar bi yëpp ci yow jërëjëf. Ah. ñëpp ñu ànd bu keroog gaa ni ñu la fekkee ni nga la fekkee ñii ñoo la la fekkee fee yóbbu la ca bureau ba. nga toog ca pale ba insallaahu rabbi ñëpp nag yow lañ jox bët yan na la yàlla jàppale kontaan naa trop ndax yéen ñii Cheikh Baba Mbaba Diop mi ngeen àndaloon maa ko jur te ngeen topp ko guddeeg bëccëg yéen ak moom fu mu dem fu mu leen woo ngeen fekke ji ko Ablaye Baati Babu moom xam na ngoone mooy kan Cheikh Issa xam na ngoone mooy kan ndax fu ne woo nañ ma fa ma fekk leen fa kon nag xamante nañ yan nañu yàlla jàppale gis nga ndox amu fi courant amu amuñu sécurité boo xam ne bii ne fii bu ñu génne fii guddi dañ ñuy dogaale jigéen ñaa ngi ni amuñu liggéey par juróomi dërëm par fukki dërëm xam nga ne moom tamay dara te moom la ñu dajaloo fii di ko def dañoo bëgg na nga jàppale xale yi ci liggéey ndax ñu mën a am lu ñu jàpp liggéey ci ndax ñu ngi nii fi mu ne nii fii gis nga fi jigéen ñi ci fayal la ñuy dog di rooti benn teen moo fi nekk boo yéexee ñëw doo am ndox xam nga loolu yàgg nga yàgg nañ la ko fee wax kon nag góorgóorlu ci jàppaluñ ci amuñu dispensaire ku fi la la le candidat parce que 2018 il a organisé journée d'excellence

suñu yaay yi le 23 jege na jegewul li am solo mooy na ñëpp mobiliser wu koñ bi ñun gëm nañ lépp li nga xamante ne si liggéeyal nañ ko koñ bi ba tax ñu ànd ak président Cheikh yéen a ko def si ñun parce que yéen yéen suñu ay waajur Wolof Njaay dane nag peccam liir bu neexee ndey jaa jàpp ci mbagg yi yéen yeneen suñu ay waajur koñ bi ñun moom la ñuy dundee moom lañ gëm université gee ñu nekk di fa liggéeyee lépp lu ñu fa teewal koñ bi moo tax ñu koy teewal kon nag di wax ne ñun ñu ngi ak Cheikh Issa bu muy neex ñu ngi ak Cheikh Issa buy naqari ñu ngi ak Cheikh Issa ba faw di ñaan waa koñ bi yëpp nag ñu votel ko waa poulailler ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di kontaan bu baax ci gise bi ñu ngi ziar bu baax kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci quartier bi di ziar sunu papa yi sunu yaay yi ñi nga xamne ñu ngi ci biir kër yi ñi déglu ñom ñepp ñu ngi sakku ci ñom ñaan yàgg ngeen ci terrain bi sëru sukkali seen quartier yàgg ngeen ci terrain bi jappalé doom ci bi ci liggéey pour mbuur jëm ci kanam ci bi pour que problème yi quartier bi am ñu koy wax ndox di ko wax làmp yu leer di ko wax inondation di ko wax ñàkk tali di ko wax insécurité yàlla def ñu indi si saafara kon ñun tamit buñ nekkoon si yoon boobu ngeen nekk ci ba yàlla def tey jii ñu daje ñun ñëpp dañ see war a sant yàlla bu baax te xam ne incha problème yoy mom légui mu fété ñu ginnaw di len and ak yeen ci problème yi ngeen fi wax di len and ak yeen ci formation ak financement di len and ak yeen ci jàngu xalé yi di len and ak yeen ci lampe ak courant ak ndox mu sel ci bir quartier bi di len and ak yeen ci ay tali

ngeen jël bi nga xam enveloppe la la la la yeyo urne la yeyo ngeen def ko ci enveloppe ko ko ci urne yi yeneen yu bon yi nga xam nak yeneen yi nga xam baaxuñu ci poubelle lañ wara dem ngeen dugal leen ci poubelle bi bu ko sam ngon nga rek ñu mëna wër dëkk bi bi dé buñ paree ñu song problème dëkk bi ñu defar sunu dëkk bu mel ni dëkk yu baax yëpp wara mel ñu leen di waa Mbuur jóg leen jóg leen sunu meer Cheikh Issa Sall jóg Usted aquí, bañ lay jëw neex naa dégg fu nekk mooy yaa ngi dimbaliwante yaa ngi bëgg lu baax loolu yàlla la ko yàlla jëm xam naa li ñuy wax rek mooy ñun ñii li ñu consommé mooy suñu jumaa ji wax dëgg yàlla bu ñu sañoon ñu defaralal na ko ba mu bees ba mu bees rapp na peinture ba rapp na mokkati ya yàqu na amuñu duus amuñu morgue amuñu collectif su ko defee suñu ñun ñi itam daara yi rek lañu am bu la yàlla joxee dëkk bi ëllëg waaw waaye gëstul daara yi ak dong ak sëriñ daara yi amuñu dara lu dul ci daara yi amuñu weer kenn duñu fay dara ci daara yi rek lañuy wëy ba loolu waaye moo di yi fi jaar yëpp wa tabarakallah yàlla def nañu ñu def lañu mën waaye yow mii bu la yàlla joxee dëkk bi suñu koñu suñu ndaw dëkk bii deug deug mer yi fi jaar yépp benn ndaw amuñu ko du góor ju jigéen waaye nag bëgg nañ ngir yàlla suñu ndaw ñii sos bés boo faloo wax dëgg yàlla nga sedd leen place ñoom itam ñu mën di laaj fa ñëpp di laaj xëy na li tax amuñu li ñu war a am mooy xëy na dañ faa nekkul waaye comme ñii ñu ñooy suñu doom ànd ak yow suñu xel dal na ñu ngi ñaan ci wut lañu nekk waaye yal la yàlla may waxati moom foofu rek lañu koy yemal am nañ yaakaar yàlla dina la may yàlla la yàlla may wasalaamualeykum wa rahmatullah président Cheikh Issa Sall ñu ngi lay dalal ci jàmm bismillah yaag ñépp ñi nga àndal Cheikh Issa mënuñoo wax mukk te waxuñu ci bayaal bii nga xam ne monsieur le maire dafa taxaw pour foqar di ko ci suñuy loxo ne dafay def hôpital boo xamante ne bi ay étranger yu jóge ca àll ba ñoo ko fi bëgg a def pour nangu ko ci suñu loxo te ñun tay amuñu benn tay bayal bo xamanteni bi suñuy xalé war nañ fa mëna tagatu seen yaram lu bayal bi nga xamne mom lañ fi déssé te incha allah fu yaakaar naa ne foofu di nga fa jaar benen bi ci top moy Cheikh isa ñun li nga xamanteni mo moo ñu lëkkaleeg tay dëkk bi muy yoon wi ku fi jaar tay don bo yorulee 4x4 rek di nga ñuro Cheikh isa bu la yalla denké dëkk bi fale Lillahi wa rasuli dañ lay ñaan na ba na nekk li nga xam ne mooy sa première mébét nga defaral ñu ko beneen bi ci topp mooy Cheikh Issa suñu jigéen ñi amuñu fenn foo xamante ni bii tey dinañ fa toog ne dañ fay demee marché lu dul ku ci nekk yaa ngi toog sa buntu kër ut fa taabul bëgg nañ ñu defaral leen foo xamante ni bii te loolu xëj na ci bayal bii foo xamante ni bii vraiment fu ñuy dajaloo la man faa def seen commerce pour ñu man faa am dara Cheikh Issa mébét yi bari na. ñoo wax mukk te ñu suñu dekkando yi nek fe nga xamanteni bi ki fa la dekk Oustaz Ndiaye ba yalla bo xamanteni bi ñom fa la ñu dekk dipi ay at yu bari upp na ñaar fukki at ñu courant dekk bi yëpp am nañ courant ba mu des Cheikh isa bu la yalla joxe dekk bi lillahi wa rasulihi gessu len ñom nga defaral len nga fex ñom ñu am courant. ñun ñi nga xamne ñoo bok ak yow yene ak yaakar fin jëm buñ fa agge te dan fa àgg inshallah rabbi dan fa àgg nak du yem rekk ci dëkk bi li wër dëkk bi boo ko soxlaa da nga ci jot billaahi ndax li koy may nit yaa ngi ci kuréel gii ma toogal kuréelu jumaa la commission bi sal ci jumaa ji moom laa toogal du ñu ay politiciens waaye boo ne da ngaa bëgg a toog ak magi dëkk bi mag ñooy ñooy ñi jiitu bu ñuy mayee sey ñooy jiitu bu nit faatoo ñooy jiitu kon bu ñu amee mbooloo mu mel nii gan gu ñu amee ni yow yaakaar ci ñoom lañ lay woo yaakaar bi ñu mbokk ak yow yàlla bu mu tas dana diis ganna mbuur ak li ko wër bu la ko yàlla joxee dana diis waaye dinaa la jox support boo xam ne bul xool mi boo xool jëmb ji xoolal wax ji support boo xam ne bor boobu ñu lay lebal yaag say morom yépp ko bëgg ñu xañ leen ko jëbbal la ko te yàlla rek tax bu boobaa li nga leen mën a fayee ba kenn ku nekk nga fay ko ba wis ko muy yar ak teggiin yar jëmm a koy def teggin làmmiñ a koy def wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ba yaati baabu jërëjëf ñuy nuyu waa quartier bi yëpp nag di nuyu comité électoral bi di si jiital monsieur le maire Bayati Baabu di nuyu bu baax sama rak sama xarit Cheikh Mbabou Diop sunu mbokk sunu pàpp imaam yi sunu kilifa yi sunu jur yi toog dama leen bëggoon dalal tuuti seen xar rekk si ne seen doom yi ngeen daan dégg mbuur ñuy nekk ci wotu askan wi bu askan wi soxlaa ñu ngi seen wet ñoom ñëpp ren yàlla dimbali nañu ci benn liste nekk ñoom ñëpp ren dañoo fàtt seen bopp jël mbuur teg ci kanam ñun ñëpp ñu ànd yëkkatindoo tegandoo pour jël mbuur yóbbu ko ci kanam defe naa ne yéen jàngalekat yi yéen ne mbooloo mooy doole ñu ngi leen ci nag tàllal loxo ci ay ñaan ngeen ñaanal ñu jàmm ci campagne mi ak ci élection yëpp waaye ngeen ñaanal ñu tamit katanu bu ñu yàlla joxee mbir mi yaakaaru askan bi ñun ñu def ba def lu ëpp seen njort parce que loolu nag en définitive loolu moo ñu gën a soxal lépp jàkk moom ak juma néegu yàlla la ku la ciy o mu ngi lay utal texe àdduna ak alaaxira loolu moo tax ñun toujours dañuy am mbégtewu ak cawatewu ànd ak yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy saytul mbirum jàkk yeeg jumaa yi bu ñu juddoo yéen a ñuy teeru yéen a ñuy jox tur bu ñuy takk soxna yéen a koy fas bu ñuy wuy ji tamit yéen ñuy defar gunge ñu kon yéen ñu jara bàyyi xel ngeen bayaal bi nag yéen ñëpp xam ngeen ne ñun ñoo ànd si xeex bi incha allah man mii Cheikh Mbaba xam na ne préfet sax woo na ma ci ma ne ko Cheikh Mbaba rek combat boo leen ko gis xam leen ne maa ngi ci ginnaaw te allah bayaal duñ nangu kenn di jaay kon incha allah sunu quartier yi dañoo soxla nag fu xale yi di tàggatoo dañoo soxla ay école dañoo soxla poste de police ci kanam tuuti dañoo soxla yeneen i bërëb yoo xam ne quartier bi dina sentir boppam ci Mbour te loolu nag il faut ay bayaal mais jël bayaal yi dina gën a jaay rek lool defe naa dafa war a jeex incha te am nañ ci yaakaar ne fii ak une semaine rek le 23 yooyu yëpp incha allah doo dina féetal ginnaaw ñu leen baax di leen sant jërëjëf. waa Mbour jóg leen jóg leen sunu maire. Cheikh Issa Sall jóg leen ku la jox añ su la lee di nga reer war nga koo gëm te Cheikh Issa Sall benn kàddu moo gën a yomb dañoo doyal Fallou Sylla na dem na buub ay bagage sax moo ko ay mbokkam na fi jóge waxuma la buur mais na jóge Sénégal dañoo doyal si moom sëkk dimanche la ñuy jàkkaarloog moom jëlee ko fi si kattan yàlla dimanche bii ñëw bu delsee gis ngeen ko carte baa ngi nii ñu jëlee ko fi éliminé ko mu jeex takk na dem ñun dañoo doyal si moom sëkk ñu ko sax muy taxaw suñu koñ bi mayuñu ko sax muy ñëw fii di sant ñëpp di leen gërëm di di wax ni maa ngi jéego bi baskat di ngi nuyu tamit suñu tonton Ablaye Babou jour mu ngi ak ñun ñu ngi koy ñaanal tamit yàlla taxawaay bi gën a yàgg incha allah di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Sey Issa Sall yow yaa tax ma ñëw fii heure bi parce que man fi ma dëkk instant yi dafa sori si koñ bi laa dëkk nekk fi fukki at. di daw di topp ci ginnaaw ñi nga xam ne gisuma dara chaque jour ñu may dig de du ma gis dara. léegi nag maa ngi jógee ba Espagne damaa xëy woon war a ñibbi waaye damaa da tànnee bi daf maa woo ne ma Sey de fi ñëw Sey Issa boo tëddee nelawal parce que ñun. ciment lañu te benn yoon la ñuy tooy bu soobee yàlla laa la wax mairie bi yaa koy jël bu soobee yàlla incha allah su barke Ñas parce que ñun waa koñ bi su duñu soxla bëri nañ te yoraguñ ba léegi yaa ngi nii playé nawet bu jotee ñun du ñu dem parce que oto bu ñu ne nii mu ne ñu du ma fa jaar robinet bi ñëwut financement dara ñëwut ñun daal soxla nañ leen ngeen jàppale ñu te gëm nañu ne yow di nga ñu jàppale bu soobee yàlla waaw jërëjëf. kon tey dañoo siggil man damaa kontaan te ñii du ñu ñëwee fii ñoom ñooy wàccandoo ñooy liggéeyandoo bu ñuy dox fii ci Poulailler gisuñu tali gisuñu làmp gisuñu kenn kuñ soutenir suñu paay yi si jàkka ji chaque jour ñu leen di sonal c'est Issa tàllal nañ la suñu loxo bëgg nga jàppale waa Poulailler nga sargal ñu yow xaaroo ba élection ñëw nga gàddu sa oto di pipi bi dangaa def ba def jotee fu dëj am maa ngi la fay gis fu ngénte am maa ngi la xeebaloo kenn bësam man samay rak ñoo xam ne yow xamoo leen bu ma la ko waxoon nga ne amul te ba nga leen yor booba yow xamoo ma li nga def rek laa wax mësuma wax ci mbooloo mais tey damay wax far fosu caabi ji yaa koy yor yaay dugg ba mairie ubbi keneen du dugg bu sooba yàlla. man moom sama wax du bëri. lima may wax dañoo dëkk ci koñ gi depuis presque suñu rakk yi fii ci koñ bi koñ gi amul benn avancement ruq bii ñu dëkk amul courant amul ndox courant bi def ñoo wër mu metti ñu lool mel na ñun dëkkuñu mbuur ñu boole ci bëgg nangu suñu terrain bi nga xam lu ñu am fii lañ ko war a def ñu lay tàllal suñuy loxo nag Cheikh Issa nga dimbale ñu ci yow lañ yaakaar te incha mairie jël nga ko ba rek doon wax. mbuur gi Géej dafa manqué maire Macky Sall taat nal nu Seex Isa góoru Sira Njaay du mooy yaakaari muur maa jigéen nanu ko jox du meeri muur wax na ne mbuur géej dafa manqué maire Macky Sall taat nal nu Seex Isa góoru Kandisa ñëw mooy yaakaari muur di kontaan si ni ngeen ñu accueillir ni ngeen re la coalition bennoo Bokk Yaakaar coalition bi nga xam ne képp ko leen déggoon mu nekk biir Mbuur di faj buumu gàcce yi képp koo leen xam ne bu Mbuur masaa soxla dara moom moo daan nekk seen wet mu ngi si listu Benno Bokk Yaakaar ñooñu ñoo leen ñëw seet si tey tey orang honorable député Sera Ndiaye mu ngi nii tey monsieur le maire Bayati Babu di koordinator LDR Yeesal mu ngi fi tey El Hadj Alioune Gueye Rewmi communal comme départemental mu ngi fi Adja Aïda Ba mu ngi fi bi nga ABB dëkk Mbour Tukulóor Pafalnya nya mu ngi fi tay Maguette Cissé mu ngi fi tay coordination femme APR yi kenn desul ñom ñep ñu ngi fi taccu leen seen bop tay wa ko Abdoulaye Harsar mu ngi fi tay Mamadou Diop premier vice président am dem mu ngi fi Arona Samb deuxième vice président am dem mu ngi fi tay Kandi Sagna femme APR mu ngi fi tay képp koo leen di mos dégg rek koo xam ne bu bu mbuur soxla buñ geesoo gis ko tey mu ngi fi ñëw seet si leen fas yéene yendoog yéen ñu jaar nag ci sunu imaam yi waxtaan ak ñoom ñoom wax nañ ñu seeni mbébét ci jàkk jeeg jumaa ji waaye wax nañu également li quartier bi soxla yëpp fii ñu ñu indi nag te Cheikh Mbaba indi ñu fi tey place la bu am solo place buy wone maire bi fi nekk xeeb gi mu xeeb waa Poulailler place buy wone maire bu fi nekk ñàkk toppatoo gi mu ñàkk toppatoo waa Poulailler place buy wone maire bu fi nekk ñàkk a bàyyi xel gi ñàkk bàyyi xel jeunesse bi ak ASC e bi waaye mbajum kanam borom moo koy fajal boppam le 23 ci suba na ngeen téla a ngeen dem voter ji en masse pour la coalition beno bok yakar bu ko defee bala midi élection yi jeex ñu gagné <coughs> bu ko defee maire bi dem ku ko ni ko mam jibi bi ma jibi nga ne na dem na dem na dem na dem na dem mu ngi noonu defe naa ne kooku mu dem vraiment moo gën si waa mbuur yëpp liste bii nag niñ koy waxee Semba bo wax na ko boo ñëwee da ngay jël bulletin yëpp waaye bii mburoog chocolat bii marron beige bii am bopp fas wi moom ngay teg ci kaw moom noobal la noobal nag moom si enveloppe bu weex bu rafet lay dugg ñu duggal ko ci ben néegu verre bu rafet bo isoloir bi yeneen ci dess na comme ñu ay noble yoy da ngeen leen di jël bu ñu nga duggal leen ci biir poubelle bi buñ paree nga delu wat defat la même chose bu ngone ñu gagné commune yi ci département bi yépp ba paré département bi gagné ñu bolo defal suñu dëkk bi ñu leen gërëm ba di leen sant jërëjëf. ko ñaanal yàlla merci beaucoup.